jërëjëf kon dañuy sant ci yàlla julli ci yonent bi euh, ñëw nañ fii tey ci suba fi ñu ko doon faral di defee woote euh, nañ ko defee gis nañu aussi conditions yi baax na li ñu dégg gum ci réew mi ba tey jii mooy nit ñaa ngi woote ci jàmm ak salaam ñu ngi ñaan sénégalais ñu génn dem woote ji parce que waxtu wi dañu war a wax waxtu wi dañu war a tànn kii nga xam ne moom mooy jiite réew mi euh, def nañu campagne électorale ci jàmm ak salaam coow li bari woon na waaye li ci ëpp ci jàmm ak salaam la amee loolu nag mooy Sénégal mën nañ di werante mën nañ di xëccoo mais ñun ñoo bokk ne ñun ñoo bokk baay ñun ñoo bokk réew mi te réew mi moom important li may ñaan fi mu nekk ni mooy na yëpp jeex ci jàmm ak salaam suba Sénégal xam kan moo war a nekk président de la République yaakaar nañ ni li nga xam ne ñun wax nañ ko li nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo jàpp nañ ñi ñun ñii la war a nekk waaye suba bëgg naa daal Sénégalais yëpp bu ñu xëyee ku nekk dem ci sa soxla dem ci sa aajo. am nga yaakaar lépp ci jàmm ak am nga yaakaar gagné ko ci ci premier tour. waaw am naa yaakaar bu baax nag am naa yaakaar bu baax ci li ñu gis. li ñu nit ñi won ñu leen di sant bu baax di leen gërëm parce que nit ñu nit ñi doon dégloo nit ñu toppee ci campagne bi doon na loo xam ni dal na suñu xel li ñu bëgg mooy liggéey bu tàmbali bu gaaw bu ma sañoon suba gannaaw suba gën baa tardé ñu nekk ci liggéey bi. ndax réew mi soxla na ko réew mi yitte woon nañu ko xale yi mag ñi jigéen ñi góor ñi Sénégal yëpp bëgg nañu am jàmm loolu la ñu wane ci campagne bi Sénégal jàmm lañu bëgg loolu la ñu wane Sénégal li ñu bëgg mooy bokk nay bokk bàyyi loolu la ñu wane Sénégal li ñu bëgg moom mooy kuy jublu ci seen i soxla ànd ak ñoom jéem ko saafara loolu la amoo li may wax ma leen sant leen gërëm jërëjëf

mënuma leen ko fay yàlla rek moo leen koy fay ma wax ni nag bisub tey bii neex na lool rafet na lool mais du tax ñu fàtte 3 février 3 février est une date boo xam ne ñun ñëpp dañu bëgg ko fàtte pour ñun lii waru woon am ci Sénégal la démocratie a craquelé et elle a été balafrée mais ñu sant yàlla biñ ci egsee tey ce que nous ak li gis dalagul parce que nous avons des problèmes problème certaines parties du pays que je ne veux pas stigmatiser muy ay problème mu labaj ay problème là luuba Nous avons suñu responsabilité ñun ñëpp les acteurs les représentants les mandataires et chaque citoyenne et chaque citoyen bu vote yow ya pouvoir préserver sa vote parce que notre suñu démocratie mënul neurmelu ñaar gëm Sénégal bu la Khalifa Sall ma man président de la République fexé ba réew mi dootul dund mukk mu dund dañu ñu fexé ba askan wi ci Sénégal wóor na ma ni am naa xel mu dal ak yaakaar gu yaatu ni élection yi maa koy gagné pour construire un nouveau Sénégal je vous remercie ginnaaw Santéal, ñuy sant yàlla di euh, di askanu Sénégal bu baax parce que tey wane nañu seen taxawaay wane nañu tey seen ak seen euh, pas-pas pour démocratie pour bonne gouvernance def ko tamit ci jàmm ak salaam te ay dëkk yu bëri tey biir Afrique tey lu am nii daanaka ñoom xalaatuñu am lu mel noonu donc euh, bu ñu askanu Sénégal bu baax a di avons tamit 19 candidats yépp yu fi yàlla baaxee ñu mën a bokk ci scrutin bi ah, leen di ñaanal jàmm leen jox di ñaan tamit dépouillement bi tamit euh, ñu mën ci même condition condition xel bu dal ci ci ñun ay lañu parce que ku gëm di julli lu dogal euh, na dogal lu gën Sénégal man effectivement nekkoon naa directeur de campagne du candidat Khalifa Ababacar Sall mais ñaan yalla yalla nañ yalla may ndam wante ñun ay lañu lu yalla dogal nañ ci parce que lolu qui yoon lolu moy deug te di sakku tamit ci mbokk yi ak dal parce que fi aduna la Li mbiru politique kessa la te tay wax deug yalla sénégalais lu ñuy xaar ci ñun ñëpp moy ñu and ak dal ñu and ak gëm yalla ñu and tamit ak euh, certes passe-passe mais lu ñuy woyé surtout lucidité ak sérénité te kooku tamit may sàkku tamit ci ñuy organiser élection yi tamit euh, nañu bàyyi xel ci lu askan bi donc bu fi kenn def lu ngeen xam wax dëgg yàlla ci démocratie. mais gars yi génne parce que am naa délai délai boobu ñëwagul mais loolu mooy ñëpp xam lu jot a xew ci buntu mairie Sacré-Cœur il y a plus de dix ans de cela ñu jël dossier boobu di utiliser euh, comme benn épée de Damoclès euh, gis ngeen lu xew ci buntu Sacré-Cœur lu samba boy presque lu ëpp samba boy taxaw ak man man nek la atté man nek lañu tej kasso man démocratie la ban justice la euh, li ci kanam euh, la damay julli donc man euh, du moyengle du parce que li politique donc politique moo ma teg ci situation boobu te incha allah politique may génn ci situation boobu euh, may rafetlu tamit que tay ñu bëri te ñu jaayoon leen doole ba génn leen ci fichier bi euh njiti réew bi ak ñu mu andal ñu dellu ci waat seen xel ba mën leen dugalaat ci fichier bi parce que lu mel noonu man dund naa ko mooy lu mu yàgg a jaay doole man mii nag euh, effectivement condamnation bi euh, des na beneen beneen levier judiciaire boobu euh, ñaan naa yàlla bañ fa egg parce que ñu ma atte xam nañ ko atte wuñu ma te incha allah Khalifa Ababacar Sall su nekkee président de la République du Sénégal xam nañ ma xam naa leen dinañ wax lan mooy yoon parce que nag mënoo jël nit ki nga songa ko ci mairie am lu ëpp ci téeméeru nit Samba Boy dal ci kawam kooku daal di aar bakkanam euh, ngeen taxaw ne man rek ngeen di atte man rek ngeen di daan déggu leen fi benn nervi déggu leen fi Ben convoyeur de nervis Ben responsable de l'ancien parti parti euh, au pouvoir qui a été condamné loolu lu muy firndeel loolu lu muy wane mooy justice bi dañ ko nar a xoolaat dañ ko nar a parce que amul fenn ci àdduna fu ñuy bëgg dal ci kaw kilifa euh, xex am euh, ñu commencé première instance ngeen tollu ci ay presque 25 personnes personnes yu ñuy àtte au finish yow rek la ñuy loolu lu ko lu ko lu ko waral mooy mbiru politique te ma am yaakaar que politique moom ma ko teg politique a koy teg incha allah. lu ñuy gën a rafetlu mooy euh, dal bi dal bi te kooku dañ ci sant yàlla parce que am na ñu ko namm tey biir Afrique mënuñu ko am donc loolu yàlla baaxee ñu ko dañ ci sant yàlla bu baax a baax di ci jaajëfe askanu Sénégal te di ñaan yàlla tamit ñëpp ànd ak dal. ba la proclamation définitive des résultats mais may insister waat encore parce que am na fii autorité bu na organiser élection yi